gërëma ma sëppi sëñ Babacar loxo ca kaw nanu ma gërëma ma ku sopp sëñ Babacar loxo ca kaw nanu ma gërëma ma sa ana soppey loxo ca kaw ana soppey ma ma waa Kédougou yi laay wayal nanu màggal Mamadu waa Kédougou yi laay wa yàlla nanu màggal Mamadu sëppi Sëñ Babacar loxo ca kaw nanu màggal Mamadu yaa Rasulillah yaa karam ak kaw yaa jara màggal Mamadou yaa jara cantale ana soppa yonent bi loxo ca kaw ma way yaa rasulillah ana soppa Sëñ Saliou Mbacké di soppa Sëñ Saliou Mbacké ana soppa Sëñ Saliou Mbacké di soppa Sëñ Saliou yaa jara màggal xool gis diglu dig lamb daci na bee ko waral ya rasulillahi loxo ca kaw xool gis diglu dig lamb daci na bii ko waral ya rasulillahi yaa jara màggale ka ca di ca Medina yaay madi way leen yaa rasulallah woo waaw yaa jaramata sanga baa nga medina waaw waaw ay waay way leen yaa rasulallah woo waaw yaa jaramata sanga baa nga medina eh, ay waay ma way leen yaa rasulallah woo الله يا جرم الله سمتي جتي مويمن يا رسول الله أيوا يمين زمان لمن يا جرم أجمعنا رسمين لو أيوا يا رسول الله أيوا يمين زمان لمن يا جرم أكل may doomi abdal may doo aal may doomi odla doomi abdalaay ji doomi abdalaay ji doomi abdalaay ji doomi abdalaay ji doomi abdalaay ji aminata yaay ji yaay ji Aminata yooyu ji doomi Abdoulaye Dia doomi Abdoulaye Dia soppi na bi yaage soppi na bi yaagi soppi na bi yaage soppi na bi yaage bismillahir rahmanir rahim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 mi yetta ministre men sow mamadou saliw sow mi yettamo mi juuromo mi yetta nene gota ngom oppa ndiaye mi yettamo mi juuromo mi yetta wiya sidi ɓe bobango mi yettamo mi juuromo mi yetta tanjang mi yettamo mi juuromo mi yetta jalahan mi salminamo mi juuromo mi yetta yamadou sisoko mi salminamo mi juuromo mi salmina kadiatu dukkure député mi yettamo mi juuromo mi salmina femme assise mi ƴetta salminangomi jonna fat diallo yo jonnanan assise fof mi accani hay goto mi salmina ɓiɓɓe am wonɓe ɗo taniraɓe am banndiraaɓe e ɓiɓɓe mi salmina on onon jooɗiiɓe ɗo ɓen mi yettii gooto kala e innde mum e yettoode mum esiraaɓe an no ka sal mi salminiiɓe fof mi yettiiɓe hannde sukaaɓe e amical keedugunaaɓe mi yetti on mi jaari on enene gotagu ngu fuɗɗiɗon ɗo ngu woni duuɓi ɗon fuɗɗi komin toroto allah ko yo allah nawran on ɗum ɗo yeeso yo allah tedduɓe ɓen milan yettude responsable wonɓe ɗo ɓen fof mo kala e innde mum e yettode mum on accay hakke noon mamilima seeɗa milan yettude maire men on ko kanko patron men par que kanko woni maire commune kedugu ousmane silla hande mi wayi ceerno ousmane silla si ɗum ɗon feƴƴi milan yettude nene men aysatu ayya ndiaye mi arta joni e makko seeɗa si ɗum ɗon feƴƴi milan yettude honorable adja kanjatu dugure siɗuno feƴƴi mila yettude yamadou sisoko ko kanko wonani en ka pale ko kanko woni takko président de la république si ɗum ɗon feƴƴi mila yettude notre doyen minen ko kaw amen doyen woppa ndiaye si ɗum ɗon feƴƴi mila yettude jaatigi an koto amen vie Sidibé siɗum ɗon feƴƴi milan yettude koto amen mamadou sisoko o présentama ɗo kanko ko pca si tun ɗon feƴƴi milan yettude élage tandiam woni mawɗo amen mawɗo diina helli fat si ɗum ɗon feƴƴi milan yettude yalamba kanko woni présidente association des femmes ressortissantes kelugu Eh, min noon ceerno eh, am wiyayno wo suwan ɗo yiɗa fuɗɗade haala no woodi ko haalata ɓe wiyayi allahuma akfini sharru haulai l qawmi ya kaafi wa aafini yama ani no waɗi important hannde noon koye suumaye wonde si wiyama suumaye koye won gootum onon hannde rewɓe ɓen on holli ko enen woni gootum hannde noon mi profita e occasion on remerciugol o association mo par ce que gila fuu iɗon haa jooni hiɗon mowtude ɓiɓɓe rewɓe ɓiɓɓe worɓe Kedougou vraiment on jarama on holli onon rewɓe ɓen hiɗo wawi moftude par ce que onon woni jibinayɓe jogiiɓe ɓiɓɓe ko onon woni toppitiiɓe worɓe mum ɓen donc debbo ko kañum woni ko min wiyata pilier ko kañum woni pilier e nder société vraiment min weldike fe fota si ɗum noon feƴƴi hannde wiyama ko nene men aissatou aya ndiaye wonde wadde sargal maire aya noon hay sa yiɗamo hiɗa o si tawi ko a neɗɗo fewru si tawi ko a jolɗo a jaɓay ko neɗɗo kelluɗo par ce que hannde ko holli ɗum ko hunde wootere hannde a kontay waɗowo du duuɓi capannayi haa yeeso hara si noddi yimɓe ɓe noddotomo ko maire men on du wonde yiɗe ɗum hannde ko a yiɗa maire aye o ko a yiɗa mum saye on jooɗitike on haldi politique on haldi société anday mo andi politique e min de hunde wotere mi jotto mi ndaara e makko ɗum ɗon wona politicien kala wawi ɗum gila o fuɗɗi ha joni ko heɓi kon o senda yimɓe ɓen nen laawor siratal e laawol siratal lazina hande ko fierté min jooɗo takko ma ko fierté min wawa arde heɗito ma heɗita conférence ma par que ko wonɗa wadde sénégal kon an tigi mi anda siɗa andi ko wonɗa wadde sénégal kon donc an kadi komin torantoma ko yo balɗe ma juutu koyo cellangal heewu pour wawa kontinde wallitagol men sénégal pour wawa kontinde wadde men e dow laawol a jarama seydou sa seydi si ɗum noon mi ɗuɗɗinta haala kan hande dal komi faala wiide enen ɓe keedugu rabbi srah wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na nu yàlla may dund gu barkeel yàlla nañ fekki déwén te weesu ko jataay bi tooge woon nañu ko daaw ñaanoon yàlla fekke ren tabaarakallaahu li ëpp ci ñun ñoo ko fekke woon fekke nañu ren ñi ko fekke woon daaw te wuute ko ren te feebar ba mënuñoo ñëw yal yàlla saafara leen ko fekke woon daaw te wuute ko ren ñu tukki ba tax mënuñoo ñëw yàlla na ñibbis ci jàmm ko fekk woon daaw te wóote ko ren da ca faatu sàngoo suuf yàlla na borom bi yërëm leen yàlla na bàmmel di seen noflaay yàlla na àpp sore maa ngi nuyu nag eh, dama bëggoona làkk ci ci pulaar waaye nag mi ala ko li xaal maa ngi am mbégte lool ci li ngeen ma woo ci jataay bi ndax bëgg ma am tuyaaba ndax ku xool taabal ja kilifa yi fi nekk ku xool barab beeg ñi fi teew da xam ne lii ab liggéey la buy dox yàlla na gën a dox maa ngi nuyu nag honorable mi nga xam ne maa ngi moom ñoo bokk nekk conseil économique social et environnemental noo fa bokk nekk yal na yàlla def barke dégguma nag li mu doon làkk waaye làkk wi neex na waaw dégguma ko nag bu ñaanee daal ba ne onul ñaag yàlla rek mën a ko amin alhamdulilah ñu ngi jox cër kilifa gi doon jël kàddu gi léegi ak ministre bi ci topp ak mboolem ku jël kàddu ak DG mi nga xam ne mooy directeuru dakaar dem dikk yàlla na ngeen am Côte d'Ivoire dem dikk Gabon dem dikk Cil eh, Maxa Bakol dem dikk ñuy dem di dikk rek sunu jataay bi ginnaaw bi ñu jaajëfalee ñee doon yëkkati xasida day sunu mag ñi nga xam ne kenn du ci doyal dafa am ci pénc mi lu ñuy wax égalité wala atasaawi baynal mar'ati wa rajul wala parité baat yu bari la am baat yu bari la am comme dégguma tubaab nag xam naa ci baat boobu moom man bokkuma ci ñu mu jubu égalité bi waaw émancipation waaw mais bu ñu nee genre moom man ma daal taxaw dama déggul tubaab nag waaye daal moom bu ñu nee genre rek ndax am na ci penc mi baat yoo xam ne buñ la koy firil maanaam buñ la koy tekkil dañ lay wax je pense que wala ñu la je crois que mooy nangam gis nga je pense que ak je crois que bu ñu koy firee baat rek baat ba am na ciy firi am déet moo tax su may bëgg a tafsir alxuraan dama naan ñu jéem a firi ak jéem a tekki loo tax léeg-léeg ci penc bi bu ñu tuddee baat yooyu mu xawa a indi jafeñ-jafeñ la démocratie waaw la démocratie la liberté la la la la bi ñu bëgg waxtaan nag muy jigéen ak góor mu bañ a doon waxtaanu euh, waxtaanu Alioune ak Noé maa ngi nogoy moom xuloo rek dafa am suñu mel ni mbokkum séeréer soxna sa nekk en état lu lañ koy waxe soxna sa ëmb mu ne ah bu dee góor de oustaz Alioune laa koy tudde bu dee jigéen nogoy jabar ja siyaax mu ne kenn ka tëf nogay kenn ka tëf Alioune Sall mu ko def nga musiba ndax ci xeex la dëkk waaye waxtaane jigéen ak góor égalité na jur waxtaanu jigéen ak càmmiñam càmmiñ akub jigéenam du dëkk su ko defee dana ci am lu feeñ lool ku ko yóbbaale yóbbu dara jigéen nag kuy waxtaane ay mbiram da nga jóge fu sori ndax départum jigéen mooy sunu boroom a bind aadama ni tuut mu bind xawaa ne ko nag wa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna ànd leen ngeen jàngi mu ne monsieur et madame ànd leen ngeen jàngi bu ngeen demee fu ñu jëlee pavillon yi ca université ba ngir jël pavillon marié maa leen yoral bourse nag bourse lu ngeen bëgg lekk leen lu ngeen bëgg naan naan leen su ma leen tere daal garab gi laa leen di tere kon foofa góor ak jigéen lanu boole ne leen dem leen jàngi uskun anta wa zawjuka aljanna ba njàng may jeexit ñoom ñaar lañ génneendoo ba njàng may jeex ñoom ñaar lañ génneendoo ñu ànd am ay doom dox ba jamono ñu réeroo réeroo bu yàgg nag mën naa tax ki nga xamoon nga fakk ko loolu moo jur kestion yi àdduna daan posé di laaj kan mooy jigéen réeroo googu moo ko waral soo tàmbalee ca gaa ya nga xam ne ñoom lañ jàpp ne civilisation ñoo ko gënoon a am lañ jàppe woon jigéen bokkut ak kay jigéen waaw boo ko xamu nag xamoo ko monsieur le ministre dama mas a dem Saint-Louis seen sippax yooyu ñuy saaf ba mu baax ñu defal ma ci benn def ko ci mbuusi glace yi daal di may jëndal benn euh, benn boisson boole koog man ma jàpp ne kon damaa war a dugg ci oto bi commencé noos ila Dakar waaye li ci mbuus gi xawma ko naka ma romb gàndong rek ne ko ca mbooy ga puy sànni ko ca mbooy ga dox ba am ñetti at ñëw ci génn kër ci usine ñaari tali Moustapha Cissé ma dëkkoon Louga te nekkoon député nekkoon meeru Louga xam naa sëriñ Opa dana ko xam ma dem yëndu këram jigéen ji dàqa togg boog boog jigéen ji bokk ci ñi dàqa togg Dakar indi fa añ ñu raxasu ubbi rek ma gis ni ma sànni woon gàlloŋ ci kaw <laughs> sama kawar yépp taxaw waaye comme maa ko sànni woon gàndoŋ tey ma gis ko ci ci ci ci ci kaw ndab li ma ne xaaral ma seet ba xam ma ci sexee benn ma ne man def naa xay loolu li muy tekk mooy li nga xamut li nga xamul yépp loo xamul doon nga ci mel moo tax communication yu ni demee am solo lool ndax nit ñi xam ni mu demee civilisation yooyu daf ci am ñoo xam ne jàppoon na ni jigéen moom ci kër gi xar yi ñuy xar yi ñuy sàmm sax pour ñoom xar yee tamit jigéen ñoom loolu lañ ko jàppoon te nag yàgg nañ ci lool civilisation boobu yàgg nañ ci lool jàpp ne jigéen daal moom ci kër gi moo xar mi sorewuñu ba nga leen seen baaram foofu ci ñooñu ba demee réew yi ànd ñoom ci jigéen ñoo daan wax ni innal mar'ata innal mawta xayrun minal mawti wala boog al mawtu xayrun minal ñoom dañ daan yemale faatu ak jigéen ku ci gën faatu ñu rob la moog jigéen ku ci gën xam nga loolu loolu moo tax boo demee ci Eh, réewi Inde ñoo tàmbalee njëkk wala ñoo njëkk tàmbalee nataal jigéen def ko ci tableau mu am yar mu neen ku njëkk def jàpp ne kii moom kon ci rafetal sa aar mën lañ koo def waaw soo demee ci ñëwee ci tiir yi tawraat ak injil qabla al islaami wal quraanil karim ñoom eh, dañ caa bind mel ni mbind moom waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu dañ ko caa yàqal ca safarul jaamia mu ne ñoom dañoo wër ci àdduna si di seet àdduna lu fi gën a ñàkk solo wër penku wër sow nee na fañ àkke mooy ñu gis ne jigéen pour ñoom mooy ki gën a ñàkk solo ci àdduna si te ab téere la fii ci France nag moom boo ko doon seet tey da nga naan ci cinq cent soixante cinq six day mel ni da nga naan yàggu day mel ni da nga naan yàggul ñoom dañu dox ba mu yàgg ñu woote benn congrès bu mag daje ci waxtaan def ko ay atelier waxtaan wi yëpp mooy ndax jigéen nit la loolu moo doon moo doonoon temu congrès ba walla temu semineer ba walla temu noo ko tuddee ñu étudier ba xam ndax jigéen nit la mujj nañ ko indi ni ko ba mu ba xam léeg-léeg ñu domp ko ba xam dana ñuut lu walla déet waaw bi nu joxee ba àggal nag ne léegi boroom xam-xam yi lu ngeen xam ci jigéen ñu ne ñaar lañ ci xam benn bi mooy léegi trouvé nañ nit la ñu ne trouvé nañ kon un jigéen ak nit la deux ñu ne waaye nag dañ koo bind pour liggéeyal góor li xidmati rajul waaw foofu lañ ko foofu lañ ko taxawaloon ba ni ngay agsi 1938 bu moom yàggut danaa ci ñëw balaa may jeexal loolu moo tax fi ne soo seetloo nañ ma baal nag jëndaay yu mel nii dangay ngay dégg ñu ne kii mooy madam Ndaw madame Fall madam Diop ana sa tur wala sa papa noo doon fii li xamal la fii tubaab bi nangu nan ko léegi kay ne la wooy sa tur rek non non kii mooy mooy madame diw waaw diw moom mooy monsieur kan lu tax duñu wax euh, ndaw si di woy sa monsieur xanaa naan ndaw si mooy madame diw ba léegi sax ko ci moytuwul mën ngaa nekkub sëriñ wala ñoom seen yooyu ñu naan la ana madame man de ba ma ko waaj waxee waxtaan bi ak mu ne ma ana mën ne ko óoma madame mu ne ma déet yow waaraate wi yëpp amoo soxna mën ne ko déet am naa soxna kay madame laa amut waaw loolu maanaam bu ñu bu ñu ko joxee ci culture bu dul sunu bos garawul waaye boo ko xoolee ci njàngaleem alxuraan ak yooyu xaw naa garaaw xaw naa garaaw bu amul bu amul jëkkër dégg naa mademoiselle lay tudd noonu la mademoiselle ba amee jëkkër madame waaw kañ la kañ la fi turam bi di ñëw ba ah ngeen baal ma ñu nekkoon kon ñoom français yi jigéen nit la waaye dañ ko bind ngir góor maxluuqa li xidmati rajul ba demee ci anglais yi anglais yi te fi ne soo seetloo ci àdduna ci ñi ci xaw a gën a euh, dal ci wàllu seen diggante ak lislaam ci la bokk waaye teewul seeni jamono seen buur ba seen buur ba dafa bindoon benn bataaxal bi ca araamal ne jigéen bu leen ko may mukk muy liir alkitaabul muqaddas ah seen téere bi nga xam ne ci lañuy ñu référé di ci jàng ka jaamu seen borom ñu ne jigéen moom bu bu ko kenn may mu di ko jàkk gis nga loolu xaw na noo xaw na noo dab nun ñii fim mu ne nogay àggul bi rabbil falax àggul bi rabbil falax ndax jàpp na ne nun jigéen aw jàngam jëru ko jigéen ñaa ngi jàng nag léegi waaye jamono jooju dañu doon jigéen aw jàngam jaru ko na toog ci wetu yaayam yaayam jàngal ko bu amee at sàngam mu dem sëyi waaw fexe jaar fi yaayam jaaroon léegi nag jigéen ñi ñu ngi di jàng euh, bokk na ci li jur parité njàng moomu jigéen ñi di jàng ak soppiku yu gaaw yi leen seen jàng soppi bi jàng mi demewul noona ndax leen day yomb bu jàng mi yaatoo ñu naqaree nax par exemple tey dañu daan wax ne dañu jub ay élection moo xam local la moo xam législative la moo xam présidentielle waaye daal dañu koy jub da wut jigéen ñi ñu bokk lu ñu sol ñu róole nga wutal leen lu ñu togge mbaxal ak lu ñu tàngalee kafe daal leen di moom soo fay ñëw di campagne si ñu dajalee la jigéen ñooñu ñu waxal la fii ñoo ko moom waaw fii ñoo ko moom waaw bu dee ci bu dee ci commune yi ñu waxal la Mor Khoudia maanaam ki ngay si xëccal maire bi ñu ne ko Mor Khoudia rabbil basan jaay mango maire bii doo ci toog loolu lañ doon wax Mor Khoudia rabbil basan jaay mango maire bi doo ci toog da di pooj waaye gis nga bi ñu tàmbalee yëg ne téere yooyu leen di tere ñu jàng ko góor ni mu ko jànge la ko jigéen war di jànge jigéen tàmbali koo jàng léegi dutul waxal kenn fii fii ñoo ko moom day wax léegi fii maa ko moom message bi daal di changé su boobaa jigéen joo gis mi ngi yëg ni fii moo ko moom film bi ñu doon seetaan li muy gàtt gàtt xame nañ ci ne soxna si ñuy wane nee na fii maa ko moom daa mel ni dañ yàggul ecole ñaata fan la fa def lañ wax benn fan waaw kon man maa ko fa gën a yàgg ndax man def naa fa ñetti fan <laughs> sëñ ba man def naa fa ñetti fan mercredi laa dugg ndeysaan jeudi vendredi ca ngoon laa génn waaw moo ma tee dégg tubaab waaye gis nga jigéen bi mu tàmbalee gis yëf yi su ñu leen bàyyi woon ak vitesse woowu ñu déparé da ngay toog assemblée rek doo am député bu góor maa la ko wax jigéen ñi ma xam si bëgguma lim ndaxte ab liste lañ dégg naa fi sax benn benn bu nekk fii ci biir waaw honorable mi salminii ma waaw ndax ki ki ki kii nelaw jóge ci nelawam yeewu jàpp ne daa yéex a jóg jàpp bokkut ak ki jàpp ne jógal nañ ko waaw tax jigéen ñi jóg daal di laxasaayu nag ma ne su fekkoon dañ leen a bàyyi rek amul parité léegi daal kenn ku ne loo loo loo am yaa moom fii ngay toog at yu néew duutuñu am député bu góor maa la ko wax waaye su fekkee ne honorable lu mu góorgóorlu góorgóorlu bu ko Kédougou gépp toppoon it ñu soxla vingt député bu amee dix bu amee quinze cinq yi da koy jox càmmiñam mais du jël quinze yépp loolu man ko seetaat nag waaw ndax bu fekkee dañuy xëccoo dara muy vingt jigéen jël quinze ya ñu ne ko déet parité nee na bàyyilal sa càmmiñ yi cinq mu am dix nga am dix loolu ci ci ci li parité di liggéey ci la bokk lu tax parité c'est un dos-d'âne devant les femmes et assemblée nationale waa waa dégg tubaab kaar-kaar ku dem kat mu wax du noonu waaye daal mu ngi noonu lu am solo la jigéen boo ñëwee ci réewi arab yi nag li jigéen doon daj lépp piireegut piireegutoon àdduna ca grec ya ca indo ya ca chinois ya ca français ya ca anglais ya li jigéen daj ci réewi arab moo gën a piire lim doon daj ndax réew arab duñ ko duma de duñ ko duma de duñ ko rey dañ koy gas sol ko muy dund arab yi ñoom loolu lañ doon def mhm. waaye loolu mooy wane dikkuk sallallahu alayhi wa sallam gi ndax fi mu fekk jigéen fi mu ko indi ci lañuy ñuy a xam ne jàmbaar dëgg a ngi nii ndax li yàqu ba ne tasar boo ko defee rek ñu xam ne jàmbaar nga waaye li xaw a yàqu yomb naa defar bi li xaw a yàqu li yàqu ba ne tasar looloo naqaree defar alayhi salaam bi muy feeñ jamono fekk na suul jigéen am na ci saxaabaam yi ku jàmbaare ku ñu wax Omar ibn bi muy dugg ci lislaam mooy numéro 40 bi muy faatu mooy numéro 3 ko ah la te loolu boo ko laajee politiciens yi ñoom tam <laughs> ki dugg si ci parti bi walla ci association walla ci mbooloo mi walla ci mbootaay bi léeg-léeg bu defut nii du yéeg waaye léeg-léeg mu def nii di yéeg ka gën a yambare ca mbooloo ma lank na du fi yéegi mbooloo ma yàqu parce que maa ko fi jiitu ah mu ñëw ñu bokk ko jox nangam waaye léegi liñ koy jox bu fekkee moo ko yow doo topp ci gën am ngeen ànd loolu doonutoon saaba yi cent vingt quatre mille la ñu woon téeméeri junni ak ñaari fukki junni ak ñeenti junni waa ji départ numéro quarante quarante dem dem trente huit dem trente sept mook ñoom ba trois deuxième bi ak première bi nag kenn xamul foo leen di jaar ndax ki mooy Aboubacar kii mooy sallallahu alayhi wa foo leen di jaar mu toog foofa di xaar ne politique bëgg na ko ndax ñi jàmbaare dañuy bëgg ko jàmbaare waaye yaafus baaxut yàlla na ca la musal yaafus baaxut de gars dañoo xëy di bay la sëñ bi tool ngàbb seeni gopp ñëw fekk gaa yi ñoom di ataaya waaw doo leen forom dem ñu taxaw fa yéen xam nga li nga def normalul tey li ñuy béyal sëñ bi ngeen nekk fii di ataaya ñun ñu dañoo mar ataaya xam ñu fay xuloo ba jant bi so kenn dimul toon adduna ngi dox ci loolu moo tax Omar moom laa Omar mu laa bëgg nettali bi mu ñëwagul ci numéro 40 boobu nee na daf daan toog ba mu yàgg rek mu ne teqet di ree bañ koy fëgg waaye léeg-léeg mu toog ba mu yàgg rek muy jooy di jooy di jooy ba ñu indil ko musuwaar benn bis nag jenn waay na ko waa yow sa ree ji ak sa jooy yi lu xew mu ne ko dama dundoon lu saf xorom moo may reeloo mu dund lu soof moo may jooyloo mu ne lu saf xorom li ba koy reeloo mooy maamam dafa amoon yàlla jum samp ci kër gi mais dañ koo defee tàndarma yàlla ji dañ koo liggéeyee tàndarma nee benn bés kër gi amuñu dépense dara amu fi seen maam ne leen dem leen ngeen leb tànk ba comme comme yàlla ji tàngarma la leb leen benn tànk bi ñu añ ci tey reer ci bu subaa comme suba la lëndi mooy mooy mooy mooy marché hebdomadaire barab sàngam ngeen dem jënd fa tàndarma ñu ñëw remplacer ko tànkam bi nee na loolu bu ko bu ko fàttalikoo day ree yàlla ju ñuy leb tànk la mujj yàlla moom kii leb tànk bi xanaa mu war nekk yàlla am de ginnaaw bi nga dagg tànk bi di di di di jël tàndarma ji moom mi ngi ni yi yi caaral xanaa war kay kon moom kooku moo la war a jaamu bopp Omar loolu ma ko daan reeloo ñu ne ko loolay jooyloo mais damaa amoon jabar lum jur di jigéen ma rey mu ëmb bii yoon xam ne jigéen la ëmb <laughs> loolu nag yombul ñëpp man fi ne ñemuma jox jigéen loxo waaye su ma jigéen joxoon loxo nii te ëmb ma ne ko nàngam nga ëmb maa la ko wax ñaaral ba su ma xoolee fii fii muy tëb mën naa ne ko jigéen nga ëmb walla góor nga ëmb ñaar ñetteel ba su sëqatee mën naa ko wax dangaa ëmbam déet ma yem foofu ma ma foofu ah ah am na ci yooyu de sekkar la am na ci yooyu moom buñ la waxoon te balaa ngoon nga xam ko waaw ah daara ju la nanga fa Omar nee na bi bi ndaw si ëmbee mu jële ko Dakar yóbbu ko ci ma xam mbaakol mu am fa juróom-ñeenti weer wasin bàyyi fa doom ja ñëw Omar naa yow yàgg nga si tukki bi di mu ne waaw sama tante daal moom ma doon téye rek su ma bëggee jóg mu téye ma ndax wér gi wéree di rek ñoom seen yooyu te góor ñi am na ñoo xam ne seen jabar dana nekk en état ba ba dugg na fi mu am te duñ xam la xew mooy ñu seen ngénte yi di bett ngénte daf maa bett <laughs> sëñ Abdoulaye nee na duma rek. sëñ Abdoulaye nee na ngénte li daf maa bett tabaski daf maa bett nee góor gu ko wax duma rek bi bi jigéen ji ñibbisee bàyyi fa doom ja 2000 ba 2014 xanaa doom ja fendi na cib arab muy ñibbisi nag ñu defal ko takk yooyu ñu takkal jigéen ñi seen létt yi benn fii benn fii waaw danañ koy ok waaleykum salaam je vous présente sëñ Mbacke Sylla lañ koy wax ñu ngi nuyu bi ñu ko nëxalee kiyal bopp bi xam nga jigéen ñi léeg-léeg façon yi ñuy def seen bopp yi léeg-léeg ñu maab ko màpp ko léeg-léeg ñu renversé ko léeg-léeg ñu pëtiski ko léeg-léeg ndiggal salaat léeg-léeg ginnaawu tame mhm. malheureusement léegi gurog lett xewwi na ndax mees yi kenn lekkatul gurog lett ndeysaan yal na yàlla yërëm leen bi xale bi ñëwee lett yi jàpp ko Omar nag xamul ni kii doomam la mu daal ne jabar ji waaw ñun suñ jànq si fi mu jógee suñ njànq si fi mu jógee jabar ji jàpp ne comme am na quatorze ans mucc na mu ne ko kii ba ma ba ma la fee tàggoo doon dem cil ma xambaakol moom laa ëmboon ndeysaan mu ne ko kon may papaam mu ne ko waaw Omar nee na mu dugg ci néeg kër gi jël pikk buum peel daal di butéel bi ndox ne ko ñu dem dem ba ca àll ba nee na jóge Dakar ba àllukaay Omar di gas pour fu mu suul xale bii nee na léeg-léeg mu suul ba mu yàgg mu mar xale bi jël kaas bi xelil ko ci ndox jox ko mu naan te xamul ni moom lañ war a suul nee na léeg la mu génne mosuwaar fompal ma ñaq wi pënd beeg yooyu nee na may gas rek ba mu wóor ma ne pax mi xeej na ci mu dóor ko peel ci ndo ndong li mu dugg ci pax ma mosul ko Omar nee na loolu mënuma koo muñ bu ko fàttalikoo rek day jooy ba ñu yërëm ko mu ne lan moo mayoon xol boobu loolooy coow waaw dafa am benn boxeur <laughs> Michael Jackson la tuddoon ginnaaw gi nu mu tudd Mike Tyson la tudd laa bëgg wax Mike Tyson la tuddoon Mike Tyson Yes. mais ginaaw gi mu tuub tudd Muhammad ah déedéet Tyson ci boppam Mike Tyson Muhammad Ali moo jiitu moom moo doon boxe ay 1975 mook ñoom ñoom ñoom Joe Frazier ñoom Foreman lu dëgg ndeysaan <laughs> masuñoo daje umra maak moom ñuy doxandoo Safa Marwa nii ndeysaan mun mu ko nuyu nag xanaa rek ne ko asalaamaaleykum waaw waaye bëggoon naa ko wax nag ay baat ne ko dama daal supporter kere bi ñuy jógee suñu kër dem ba kër saa faal faal di seetaani sa marché bi ay trois heures quatre heures matin la woon ànde ndeysaan moom laa faraloon waaye mënu koo koon làkk nag foofu ci anglais Omar wala boog Tyson wi bi mu tuddee Muhammad muy box rek Mbàkke daf daan def victoire presque cent pour cent léegi mënut mënutul am trente pour cent mbokk yi ne ko waaw yow lu xew mu ne ci lan ñu nekk yow koo mësul dóor bopp bi xar walla mu daanu tey ngay lu xew mooy lan bu njëkk bi ma daan dóor amul luy téye sama loxo bi léegi damaa nekk jullit su ma xàccee bay dóor lislaam ma naan ma ëpp naa def sëñ Mbàkke affaire bu garaaw nee na bu njëkk buy dóor amul lu koy téye kon mën naa dóor nii sax mu yàqu waaye léegi nag bu ne xàcc di dóor nee na lislaam ne ko caq ne ko nit nga jàkkaarloo bu dul jullitit nit la mu ne leen lii ma jur sama defee di ak sama machine lii ñu ne ko tubbil mooy leen lii ma ñam li ma ñam li muy saf tubbi dil soit ci li ma nekkoon ñàkki victoire am ma ko gën looloo daloon nag Omar ibnu Xataab bi mu waxagul laa ilaaha illallaah mu mën a suul jànq ba am fukki at ak ñeent te mooy yaay mooy papaam arab yi nag looloo fa xewoon soo toogaan nii su mu yàgg sax ñëw ne la madame dafa am doom doo ñemee wax lu mu am hmm. moom kay dangay ngay yolli ku ndànk ba ca ginnaaw door ne lu mu am hors antenne hors antenne buñ ne la jigéen boo ñibbi da ngay mer yatawaara min al qawmi min suui ma bushira bi a yumsikuhu ala awn am yaddusu fi turab mbokk yi jigéen bi lislaam ñëwagul nag ñu doxal tuuti am ko feeñ àdduna bëgg ñoo wax lan mooy jigéen lan mooy ay cëram lu ko wootelee góor ndax woote nañu sax ndax nangam ki nangam mu mu ñuy jàngal daan nañu yaa yoon naasu <laughs> yaa yoon naasu yéen niti àdduna yépp nag naasu la wax ittaqu rabbakum ragal leen seen borom allasi borom bi nga xam ne xalaxakum moo leen bind yéen jigéen min nafsin waaxida ci benn bakkan ñoo doon wax démb naan du jàng ñoo doon wax naan du nit ñoo doon wax naan nit la ña ko doon def ay ay tableau ñépp alayhi salaatu salaam ne kii ngeen di def nii yéen ak moom min nafsin waaxida jigéen tàmbalee nooy nag allahu akbar daal di am càmmiñ jox muhammad moo tax fi ne laajal jigéen ñi ñëpp a ko sopp wa imaamul alamayni wa rasulu rabbul alamin ay mamadu lamin ay jal makke yaa leen gën kii nga tudd mooy xawaakul la majdin lil wara wa jalalatin borom barrière or ba ca medina mooy wajaat bi ayaati maat kulla xaalati boobu yoneen ku ko sopp loxo ca kaw fa man sàkk fii fa huwa ilfu dalalatin damay laaj afil xaqi sakuur alfu dalalatin borom jataay bi borom weer bi borom alquran mooy taqaddama sikru mada dahru yuqraa boobu yeneen mooy rasulu safa أدواءنا بدوائه ينبي جزا الله خير الناس خير جزائه فآثاره أنوارها تتبلج يلا نيجي سيك مامي حسن مامي شيخ نتيجة جرجف يا أيها الناس اتقوا ربكم ما تخ مك مي بني ñëw ci réew mi bu ñuy takk ab sëy laa jëlanduy jàng pour xutbaa ko ndaw si ñuy maye ak ku góor ki ñuy may malheureusement laa femme du nekk ca fa ñuy maye salon lay dem ñu ñu marineel ko kanamam ndeysaan defal ko benn musóor artificiel waaw dindil ko kawar yi fii rëddalaat ko ko ba mu xaw a weesu fii defal ko ci gémmiñ gi lu niroog col gi maasaleel ko lex yi ndeysaan ñan ci jàkka jàkkat di ko waar moom ma ngi ca salon ba <laughs> barki démb damaa amoon conférence fële ca ca ca ca Linguère euh, xaw ma nan nger malal nger malal waaw man leen fi ne am na ci xale yi ñu bañ seen yaay te defuñ ci attention ñu ne ma lu xew ma ne yaay ji day am doom tey dimanche lundi mardi mercredi ba dimanche ji di ñëw ñu war koo tuddal moom mu xëy ilaa salon hmm? ñu def ko neneen nu bokkut ak ni meloon ci semaine bi mu ñëw na caq bébé teg ko fii rek bébé xool ko rek yuuxu parce que maman mi ko doon nampal depuis dimanche ak tey du kii ko uuf <laughs> yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waahida gis nga foofu nag bi lislaam ñëwee ba wax laayam ji ci lañu jànge ne jigéen ak góor ñoo yem waaye nag niroowuñu maanaam coow li foofu lay nekk jigéen ak góor ñoo yem waaye nag niroowuñu dañuy nangu ne ñoo yem nangu ni niroowuñu léegi nag léegi àdduna day dox ci déedéet ñoo yem ñoo niroo boobu nag jigul jigéen jigul góor ñoo yem ñoo niroo jigul jigéen jigul góor ñoo yem ci niroowuñu nag boobu moom xel mën na koo dégg mère hmm? bi jur yaayu yaayu Isa mère bi ko jur mère Xanna dafa ëmb ne sunu borom sama ëmb bii sama sañoon góor lay doon di def li góor yi def ci diine ji doom ji may noonu laa bëgg rabbi inni nazartu laka maa fi batni muharrara daal ni sunu borom fa taqabbal minni innaka anta samiul alim sunu borom may ko Mariama moom nag góor la bëggoon ñu may ko Mariama waaye ba mu yëg li ngénte li ca la wax sunu borom la ma bëggoon ak li ma am du benn mu ne rabbi inni wadaatuha unsa ne ko walaysa dakaru kal unsa door ne ko ne ko inni sammaytuha Mariam tudd naa ko ba noppi gis nga xis ba boo ko jàngee moo lay jàngal ne góor ak jigéen ñoo yem waaye moo lay jàngal ne niroowuñu niroowuñu de ñoo yem nag soo ñëwee ci takkaalif charia yi li li charia di jox nit ñi tey bi ñu séenee weer wi keroog àllarba ba séddee alxames dañoo moom maag jigéen ji amul ngant dañoo bokk um am de waaw dañoo bokk um man tey la fukki fan ak juróom juróom juróom añuma añuma ndeysaan yal ma yàlla yërëm waaye fi mu ne monsieur le ministre wala monsieur bu ñu fi jële woon añ suñu réew mi développé wu waaw suñu fi jële woon añ romb fii nu nekk añu ñu lakkal bu duñ koor kon koor bu doonoon koor Mbàkke fi ne ñu ngi nekk fële ñu acca leen ci añ yi bu ko defee amical kéddu gi bi duñ togg lu doy lu ngeen fi ni ñu ne ko tépp ñenn nañu nekk ca togg duñ mën a ñëw ci jataay bi waaye añ daal dëgg dëgg nag dugal naa nag benn demande d'autorisation jox naa ko préfet bis bu koy accordé rek muy génn ci mbedd mi maa ko nangu nag xoolal ñëpp ak ne selawkat nanguwuñu américain yi dem nañ parce si américain ma naan kaay leen añ waaw welcome añ na nu leen ko waxee welcome xeet yooyu la kaay leen añ nga bàyyi li nga jàppoon lépp tey soo laajoon DG mii tey bu xëyoon bëgg a togg añ huit heures la jóg wala sept heures il potox potox yi marché bu tàng bi marché bu jafe bi denrée yu cher yi lépp nga ne ci ñaq tooy xepp boo ñibbi jënd ab crème cher nga ko ci yoon bi crème glacée jigéen ji la romb di ko macc rek ndeysaan loolu métti na ba treize heures nga door ne kaay leen ñu añ ku ne bàyyi la nga jàppoon lu ñu def añ demal fi ne ci entreprise yi demal ci société foo fi mën a dem rek añ daal il faut mu ñëw jël temps gars yëpp wàcc fu ñu jëm dañuy añi xam nga loolu mënoon nañu def ko ci ay mburu def ci dara nga ne ca liggéey ba di xàmp ba tey bind bu fekkee ñuy bind ci machine la waaw ngeen baal ma ci càmmoñ bi duñ ko defee noonu mbokk yi lislaam ne góor ak jigéen ñoo yem gis kon ci koor gi ñoo yem ñu dee màkka ni may tànne tamato nun la Fat njaay Seck mën a tànne tamattu ni kee di tànne xiiraan nun la nogay mën a tànne xiiraan ni ki tànne ifraat kenn lu ku jigéen lu mën a tànne ifraat kon ñoo yem am déet ñaar ràkk ñuy def ca ca ca biir ali góor jigéen ñoo ci yem labbayka lahuma labbayka ñoo ci yem am déet bu ñu àggee juróom-ñaar yoon la ku ne tawaaf ñoo ci yem bu ñu julli maa xaabiram ku ne ñaar ràkk ñoo ci yem kaafiroon ak ixlaas de ñoo ko bokk am déet bu ñu demee doxi safa ak maro ku ci nekk juróom-ñaar ñoo ci yem léegi donc nun nga koy toppi nag rek lépp moo lay wax ne góor ak jigéen ñoo yem ñu ñëw nag ci niroowuñu nag niroowuñu de góor ak jigéen niroowuñu fi ne ci koor gi bariwul jigéen ñuy woor lépp dañuy am ngànt nàng mi fa noppalu dañuy tàmbaliwaat xam naa damay wax ne bu fekkoon lislaam def ne ku sa su sa soxna gis ngànt doo woor ji góor ñëpp quatre femmes la am kii dóor la cinq jours kii dóor la cinq muy dix kii dóor la cinq kii dóor la cinq muy vingt dix ngay woor suñu borom mooy suñu borom <laughs> mu may ko jigéen ñi parce que niroo wuñ ñoom moo tax yooyu muy tege it ñu ñu bokk la ko ñun ñëpp pay ga ñoo koy tolloole pay ga ñoo koy tolloole moo tax foofu boo ñëwee ci tey légalité parité ak ñoom seen yooyu l'islam moom noppi na ci loolu day wax ne jigéen sañ naa am góor sañ naa am ku ne loo fàggu yaa ko moom su boobaa ki wàcc ci politique bi di jigéen mën a gis ay moroomi jigéenam jox leen message boo xam ne góoram fi te yorul message booba buñ ko déggalee wax dëgg yàlla mul moo ko war a añee am déet waaw waaye fi ne bu ñu dugalee yéen ñu dugal noonu day mel ni loo bari la bari la da ngay séddoo rokki mi rokki borom bi nee na wa man yaamal min as-saalihaati wa huwa mu'min ku def lu baax soo dee góor ni ma lay fayee ku def lu baax di jigéen nun laa koy fayee jeex def lu baax di góor li lay fayee ku def lu baax di jigéen loolu laa lay fayee wa man yaamal min as-saalihaat wa huwa mu'min loolu xam ngeen message su lislaam la bu am sol buy wane ne góor ak jigéen ñoo yem waaye niroowuñu bay demee suratul ahzab bi yàlla lay jeexal saar bi innal muslimina wal muslimaati waaw wal muminina wal muminaati ba mu jeex lu ma góor defal daal moo ko jigéen defalee ma fay ko li ma koy fay waaw lu ma góor defal bu ma ko fayee su ma jigéen defalee lu ma fay ko lu tali li ma koy fay hmm? na fekk rek mu'min waaye niroowuñu nag ci kaw am na lu yàlla mooñ ci góor defu ko ci jigéen stage bi ma la waxoon bi may door tàmbali kere bi stage biy jeex sunu borom war a génne aadama génne xawa ci aljanna ja def ne ko falaa yuxrijannakuma min aljanna ñu ne ko ah mu ne ko fa tashqa bu ngeen bokkee génn yaa koy ëpp coono loolu la wax aadama su ngeen génnee aljanna ci yaa koy ëpp coono ah mu ne waaw mu ne ko ndax li ma def ci yow bokkut ak li ma def ci moom tey soo jëlee euh, masuliya responsabilité gi jigéen am bu toll noonu la góor am léeg-léeg nga gis koo xam ne ki jàpp na ne ku baax jëkkër baax nga gis ku jàpp ne ku sa jëkkër baaxut baaxoo gis ku amul jëkkër sunum réew fi mu ne léeg-léeg bu fekkee ab sëriñ laa ñi ma yor dañ leen tudde ay soxna si fekk soxna si du ci waaj ci ku jigéen ki la waaw ñun nag ci sunum réew ñi nga xam ne ñooy joxe xibaar yi ci rajo yi jëkkuwuñ làkk yi làkk yëpp nag laa wax xanaa wu tubaab wu moom jëkku nañ ko je pense que je je crois que je pense que boobu moom jekku nañ ko <laughs> waaye bu wolof bi bu pulaar bi bu pël bi bu séeréer bi yooyu gaa yi ko loolu mooy tax nga gis ñuy ñuy wax euh, championnat baske bu soxna yi footballu soxna yi léeg-léeg nga dégg ñu ne daara ju mag ji ñu ngay sànni xeer dégg loolu ku dégg wolof di ko wax daara ju mag ji mooy alxuraan daara ju mag ji mooy alxuraan wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal te fii école moo fi am ak daara boo ne dongay daara yi rek na fekk ña yor alliway la te na ca daara ja ñee nag élève lañ tudd walla etijan am de waaw tubaab bi nag moo ko tàmbaliwul naan naan ñu la daar sa la médar sa ñi mu wax almadrasatu ñi mu wax l'école mu jël el bi jigéenal ba mbir mi laamee dara saa moo tax ci ndakaar amoon euh, ay cinéma yoo xam ne bii Al Hilal la tuddoon bii El Mansour am déet bii tudd El Malik seetlu ko rek lu tax pour ñu ñeme pour ñu ñeme cinéma yi elage amoon na alkarim amoon na waaw pour ñu ñemee cinéma yi tubaab bi def ko nag ñuy dawal film indo moom dafa bëggoon ñeme cinéma yi mu jàllale message am far film indo yi di ñëw ñu seetaan indo rek ba ñu ñëpp ñu am santiment indo ah ñun ñaar ñor sentiment indo jigéen ñi nopp seen jëkkër yi jëkkër yi nopp seen amoore yi ndeysaan indo yi def ci ñun jeexantal yu doy waar tubaab bi daal di jële fi jële fi cinéma yi indi télé la ñu doon jox santiment yi mu indi safaan yi garceer ak kaboy rek dugusum rek ba mu jàgg ñun ñëpp sentiment yi fi nekkoon daal di soppeeku léegi ñoo ñan tëji kër taal ay oto taal yi pënu ak reese am déet jam nañ ko paaka rey nañ muur xujj yàlla nu yàlla yërëm delloo siwaat film indo yi xam naa su naa ju doon sax ma wayal leen papa bolo bolo duggukati indo yi xam nañ ko DG xam nga ko xamu ko ay film indi loon 1975 ma nettali la ko ndax nga xam ko ñaari couple lañu woon couple bi am doom ju góor bii am doom ju jigéen mbàkki benn couple bi ku góor ko faatu beneen couple bi ku jigéen ko faatu kii bàyyi doom ju góor kii bàyyi doom ju jigéen donc couple bee góor ga dem na bii jigéen bi dem na xale yi kii am na góor kii am na jigéen léegi nag xale yi nag bëgg seen ñaari papa seen ñaari parent yooyu nobante su ko defee ku ci nekk dana am papa kii am ak yaay ñu ne ko nag papa bolo bolo daañu ne ko mama bolo bolo <laughs> ah c'est ou su ma ko woyoon kay saal bi yëngutu woyu ma kay kay dama ko wax rek waaye yee eh, eh. man ma dugg di oto di way bañ paasal ma maa ko sama yaay mu ni ma kooku nopp yi baaxut waaye gis nga jigéen ak góor ci responsabilité masuliya ma ne ki jëkkëram nekk waliyu amul benn jeexantal ci change ay responsabilité lu dul moom mu xam ko taxawe ko ki am jëkkër ji yambare it te moom yëmbarewut yambare jëkkër ji yoonu jabar ji ne ko ci demal ci alxuraan wa daraba laahu mathalan wala daraba laahu masalan lillazina kafaru imraatan nuuh wa imraatan luut suñu bari naan daa amoon ñaari yonent kenn ka nuux la tudd kenn ka luut seen jabar ya sàggan lool jabari luut moo daan wax góor jigéen yi paa bi am nay gan bu ñëwee bu góor jigéen doxee mu ne ko non du dox bu doxe nii de waaye di leen jàngal nu ñuy ndeysaan bi yàlla yàlla ne ne jëkkëram lóot maa la yónni ngay yónnent waaye kii moom danaa ko duma waaw jabari nooxun moom it noonu la mel fa xaanataahuma loolu nag li muy jàngale mooy ki ki jëkkëram baax moom na baax ki jëkkëram baaxutit moom na baax ah ndax euh, Asiya jëkkër yépp moo ci yeesu jëkkër mooy firaw naay jëkkëram firaw na mooy jëkkëram moo yées yées ci jëkkër yi jëkkër yépp a ko tànne ma wax la ko tey jëkkër jooju jëkkër yépp a ko tànne firaw na dafa am benn bés ndeysaan ba mu ne ana rabbukumul aala iblis ñëw ne ko ay eh, grand exagéré nga nag yu wax tey ëpp naa ah. mu ne ko mu tuub ko iblis ne waa noonu jarul tuub nag kii jarul tuub ah parce que xam ne bu ko tuubee génn ci te bëggul ko tuub waaye sëñ Mbàkke teewul firaw na moomee jabaram ne rabbi ibni lii bay indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wax ko wa najjini min sama jëkkër ji de wa najjini min sama jëkkër ji déedéet wa najjini min firawna da ko sàllalu waa amali waaw mu ne yàlla sama jëkkër baaxut waaye man su ma sañoon ëllëg yow lay dëkkal allahu akbar sama jëkkër mi ngi ni baaxut amaluhu jëfa mi baaxut waaye su ma sañoon yow lay dëkkal ëllëg rabbi ibni li indaka baytan fil waaw loolu li mu jàng li jàngale mooy jigéen responsabilité ak góor partage la na ku nekk jël bu ñëw ci lislaam moom bu ñëwoon ci parité tey du ko defe ñun niñ koy defe naan liste yi góor jigéen góor jigéen góor jigéen wala jigéen góor jigéen jigéen góor bu doon lislaam moom du def noonu loolu moom pare na ci te it lu jafee am la nag te it lu mën a xajamal politique la it ngeen baal ma nag ndax su fekkee boo tegee mataar foog nga teg noge yi teg móor xujja foog nga teg sukkay bi jan jigéen ngay am ba am téeméeri jigéen ak juróom fukk te ku ko bind doo ko bindaat laajal liste yi suñu liste yi fii su dégg ko liste yi liste yi liste yi liste xajam coon de parce que yomb mu tax keroog ba ñëwee na Cheikh Sidi Mokhtar parité bi jóge Touba liste bi jóge Touba na na parité mu bind ko amul genn jigéen fàttewu leen ko te ka liste ba jàll na hmm? maa la ko wax man turki la ma fekk ma connecté rek gis ko rek da di kàbbar sujjóot fa ñaari sujjóot ndax kontaan parce que loolu daa am lu muy jàngale daa am lu muy jàngale lislaam moom lu mu wax wala hunna mithlu lasi alayhinna bil maaruf rendez-vous de donner et de recevoir li ngay joxe lu ñu toll ngay am loolu lislaam wax wala hunna mithlu lisi alayhin bil maaruf waaw lépp lu war jigéen gi noona la ay sañ-sañam toll ni ay sañ-sañam toll nun la ay wareefam toll wala hunna mithlu lisi alayhin bil maaruf ba àdduna tàmbale dox nag ba léegi démocratie bu mel nii akuk sañ-sañ akuk liberté liiraguma ko feneen ñun kay léeg-léeg ñooy topp wala rijaali alayhina daraja di xaw a noggutuwaale waaw wax ne loolu leen jiitu ci daara ji nangam nangam di ca teg ay noggutu waaye dine wala hunna mislu si alayhi bil maaruf mooy ko ndekete soxna si buy dem day tàggoo waaye ndeke monsieur moom tam day tàggoo waaye am na musique yoo xam ne tàggoo de ñu dem rek ay baax na léeg-léeg nga tàggoo ndeysaan ne dama bëgg dem Castor mooy seeti Alioune Sall ñu la doxal nga ñëw fekkoo fa nga jaar Liberté 3 ñëw nag toog ne cel kenn nay jël audio ne ko nii waaw ne ko neex ngénte waaw barki démb de da daje naag Mor Khoudia Liberté 3 fa Ndiaye Seck ñoom xam nañ ne boo ko waxee jigéen jëkkëram ñoo rek mun a ko loo doon wuti déedéet danaan cel ba 2024 ba 2024 nga xëy na ko maa ngi dem Castor seeti Alioune Sall mu ne nuyul maa Liberté 3 nga <laughs> laajal jigéen bu ko defee gis nga biir bis boobu daanaka doo añ Liberté 3 la mu la doxal rek yow miy tàggoo Castor dem Liberté 3 kay moom bu daaw ba yow yaa ko fàtte muy jigéen moom du fàtte yooyu. jigéen yàlla moo ñu noonu moo tax dañuy wax ne ku ñu def loo daawa da ngay jàng tabiatul mara tabiatul mara dafa am yoo xam ne bu ko jéem a dindi ci ñoom wala hunna mithlu lasi alayhim bil maaruf bokk na ci nga xam ne bu ko jéem a dindi wax gis nga ku nekk ak jigéen te bu waxee nga ne ko doy na lu xew yowa day day de bu waatar li li nekk fi nu mu waaw moo tax suy wax del wax dëgg la de dëgg la kay waaye bàyyi mu wax nag rek dëgg la di na wax de loolu bu ko jéem a dindi jigéen la ca tege mooy bëgg lu rafet bëgg lu rafet gis nga monsieur le ministre ni ñu toogee nii yàlla nañu fekkee déwén bu ñëwee boo laajee soxna seen lu nuñ nuñ toogee woon mu na la DG Dakar Dem Dikk moo fi <laughs> féetewoon loolu mënoo ko jënd jigéen ba ca tege mooy fàtte fàtte yàlla dafa mooñ ci jigéen fàtte ndax daa bëgg muy fàtte léegi nag li fekk mu ngi fàtte fàtte gu positif doo am problème mais bu négatif nga ne ko lu tax hmm. dugal ko ca gële bu fekkoon jigéen du fàtte ku am doom du tëjalug ay wax naa dëgg de fottasu leen waaw gis nga yàlla yàlla rekk yàlla mu def ci jigéen fàtte moo tax fàtte googu dee ko dee ko sóoraale euh, paaseel ma sama yére sàngam bi xëy paase woo ko nga bëgg a taal kër gi da ko fàtte dugal ko ci fàtte googu yàlla mooñ ci moom te xam ne lu naturel la tabia la ci moom boo ko sóoraale rek ngeen dem am de ba ca teg nag mooy bëgg yaa fi man jigéen yaa fi man laay laay laaj leen ñaar duñ ci doyal lalal naa la li nga togg neex lalal naa la jigéen du ko doyal mukk mukk mukk xam nga noonu fi nekk ne bu ñu jógal rek da jël ci bi rek gàlloo jubbanti dem ñun noonu la def di waaye ñoom bu ñu xëyee war a ñëw fii sept heures dem la ñuy jóg sept heures dem la ñuy jóg waaw ba ba ba ba ba huit heures nga ca sangu ma te ka sangoo nañ démb huit heures ba huit heures quart ña nga ca nàpp-nàppal yaram huit heures quart ba huit heures demi ña nga ca maasale am nañ seen benn affaire bu ñu te ne ko capp ci benn affaire di ko def nii waaw maa amoon sama jenn bàjjan du du génn kër gi te gisuma ko aka sonnoon léeg-léeg mu musóoru génn rek ma ne ko yii bàjjan bi moom mu delluwaat ci biir sama yaay na ko kii dina la dof de mu ne mu ne yii bàyyi koog man rek ndax duma ma musóor waaye su ma ba mu ne jàng na rek waaw <laughs> ah, que am na ci góor ñi mel noonu dañu lalal seen soxna yi lalal naa la ah togg gi mën a jaraw lakk waaw neex na bari na yow foo jànge ceebu jën sax mu ne la saint wi pe pen na mbay ma jàngal ceebu jën waaye sunu borom bi mu ne seeni war ni la seeni sañ-sañ toll daf ne wali rijaali alayhinna daraja kàddu gu mujj gi ci kër gi nag ku góor gi laa ko jox kàddu gu mujj gi ku góor gi laa ko jox moo tax foofu tam bu ñu àndee ci maaruf rek kàddu gu mujj gi ñu mën koo jox ku góor gi ndax jox gi ñu koy jox ku góor gi dafay mottali xawaamaam maanaam taxawaayam waaye moom it na xam nu ñuy jëlee kàddu gi hmm? boo amoon soxna tey ngeen xuloo ngeen xuloo moom mi jigéen léeg-léeg wàcc du ko yomb léeg-léeg nag yow miy góor kon boo wàccut bu wàccut hmm, luy xew rawatina jamono yi nga xam ni duubul lii moo xew duubul lii lal bi daanaka ni lay toll fii ak fii léegi bu ngeen meroo këli day tëdd Kébémer kii tëdd Louga diggante bi dara nekku fi moo tax duubu wàññi leen lii xam nga suñu borom fan njaay daf ne ku fase sa jabar bu mu génn néeg bi bu mu wàcc lal bi bu mu génn kër gi yow tam bul génn néeg bi bul wàcc lal bi bul génn kër gi lu dangaa liggéey yéen ñaar yéenay bokk benn lal te danga koo fase ba trois mois ba trois mois ci benn la bu dee diibul lii mën ngeen def séparation de corps tous les nuits séparation de corps waaye su fekkee ne du du lii xanaa lal bu yem la bala ngeen a am ñaari weer mu nelaw guddi na la nii loxo lal bi dafa xaddi muy nelaw rek moo koy tey nag day day day wax ne dafa tëral di dong waaye daa bëgg a juboo mu ne la kon nii léegi su fekkee da ngaa bëgg juboo nooy def ne ko nii am de jeex ko doon wax Louga nag <laughs> maag sama gars yi <laughs> benn maire jóge fee rek dem ci góor ña daan na ko nijaay yaa ngi dégg <laughs> nijaay yaa ngi dégg ñëpp toj maanaam li may wax nii la bëgg nijaay ji bu ñibbee mu di ko doxal léegi nag may wax ba mu yàgg rek mu jóge fee rek waaxu ñu ñëpp def na fa lañ jëm mu dem ba ci jëkkër ja taxaw ci kanam ne ko yaa ngi ciy dégg kenn mësu koo gis rek ah. ma ne xawaama googu xawaama googu jigéen moo koy moo koy mottulil góor moo tax nga dégg gone tooñ au lieu yaayam pes ko da wax ba sa papa ñëw seetlu nga ko ba sa papa ñëw lan lay tekki mooy maag yow daa am ku ñu yilif loolu mooy wala rijaali alayhinna daraja waaye yow mi nga xam ne yaay papa ji nag comme daa am ku leen yilif mu ñëw bu na laa waxal ci bàcc dafa futbali woon bul ko banaliser de kon yaa ngi yàq yarum xale bi bàcc mii kat dafa dafa fu baloon mën na ko ba sa papa ñëw bu ko defee nga dang dang nga xool ko nag yow tax nga doon football bi tàgguwoo daal di ñàngal ba mu ñàng na nga door a bàyyi waaye rek banaliser ko comme sax beneen yoon day def lu gën a garaaw boo ne ko ba sa papa ñëw du saf xorom du saf xorom jigéen ak góor ñooyam niroowuñu mu tax sunu borom nangu góor gu denc ñaari jabar mbaa ñett mbaa ñeent te maam du ca yoroba hmm? une femme deux trois et quatrième quatre quatre quatre femmes yi bu ko nekk amee treize gosses nga am cinquante deux gosses ndeysaan ngeen baal ma nag yéen ñi nga xam ne bentali ngeen dëkk yéen ñi dëkk bentali ngeen baal ma gis nga foofu ci wàllu gisinu lislaam buy layal loolu day wax ne fanjaay sekk bu amee boroom kër moom képp mooy aye mooy moome mooy aye mooy léegi tey mu màggat te màggat jutu léegi tey xel mi jaxasoo te jaxasoo jutu mu ne jëkkër ji wutal koo ko aw loolu kat mooy ñaareel wutal ko ko aw ci liggéey bi nag su toggatee ñaari fanam noppalu defaru yaramam am déet bu ko neexee sax dem mbuur jëndi keccax ak géej ji ñëw jaay parce que am na deux jours yoo xam ne moom day noppalu nga dem ci kër ñaareel boo fa jógee ñëw kër aaw ñaareel noppalu loolu kat la ci jiblu waa jigéen ñoom dañoo defee ne wujju mooy kii ñëw déclare la geer te sax noonu lañ koy defee léegi waaw Fat Njaay Sekk ne njëkk ji da ko takkal wujj loolu kenn du ko wax di danga naan Fat Njaay Sekk njëkk ji dafa takkum ñaareel waaye da koo wutal wujj lañuy wax Fat Njaay Sekk ne fii la may fekk déclaré ko guerre hmm? nee naa bu bu bu ñaareel di nuy si aawo xuloo la ba fin kee day wut ko ko xulool kii wut ko ko xulool ba ak seen salaamaaleykum jekk tànk lay nuyu mu ci musóor gu kawe gi loo ba baax ki mu musóoram kawewul te baat yooyu par benn baat dañ koy peese wax ba noppi nag daal di yëkkati benn cadeau bu def basin ak ñoom seen yooyu ne ko nag kii nag noo la ko nuyoo moom tam xuloo ko tam jóg ne ko jërëjëf ñun dañoo rëj ji mu dëju waaw rëj ji muy dëju aaw bi ci mbir ki waaw daan na ko nag def nga ni nga tollool ñu ngi koy xeebal lim def kat def nga ni nga tollool sa jaan wàcc na bu nu ñibbee rek audio yu bu ñëwee ci miraas danga gis ñu ne góor ak jigéen wax naa sànq ñooyam niroowuñu miraas ñëw papa faatu ñu jox ko góor ki dix mille jox ko jigéen gi cinq mille ne cërub góor ñaari cëru góor mooy cërub jigéen loolu bu la ko lislaam waxee nii bu la ko nit ñi waxee ci àdduna danga naan loolu normalul fekk looloo normal bi yàllay jox jigéen cinquante mille di jox góor cent mille dafa fekk jigéen dañ koo jële ci dañ ko doon donn moom maanaam moom ni ñuy miiraase alal ji lañ ko daan miiraase suñ borom ne boo ko fi kenn doon ci nag ci ci force mu ne alhamdulilah rabbil alamin mu ne ko du ma yem sax ci ne duñ ko donn mais yow da ngay donn léegi su ko joxee cent loolu loolu moo dul logique gis nga nun jàngalekat yi dugg ci école yi di jàngal xale yi bu xale ñëwee première. interrogation wala première tam diinam nga jox ko 20 yàq nga année scolaire am hmm? yàq nga année scolaire am da koy jox 7 di yéeg ak moom muy góorgóorlu nga yéeg ba baax nga àgg 19 sur 20 nag moom bul ko ko may mukk lu dul mathématique 2 plus de égale 4 luur ko fe ndax li mu wax dëgg la kenn mënu koo dindi am déet <laughs> ngeen baal ma ba ma daan jàngale noonu laa daan def dañ dàq nag ndeysaan ma jeexal ci sañ-sañi jigéen ci 1938 la ko France di door a nangu 1938 maanaam boobu ñëwaguma fi 1938 boobu ñëwaguma fi xaw ma ne ku fi ñëw ci saal bi booba ma mosoon naa ko wax ndeysaan ba meer soxna Jóob yaay Maodo <laughs> ma ne ko bàjjan l'an deux mille soixante quinze mu ne ma leen loolu ma ne ko juróom-ñaar fukki at ci kanam mu naa ah, mun ne ko dana am ñu bari ñoo fi nekkoon du leen fi fekk mu ne ma dellu wax jàmm <laughs> waaye tubaab daal ma moom yàgg rek français yi 1938. ñu commencé ne léegi nañ nangul jigéen ñi ñeent xam ngeen ne léegi lañ ñu lañ leen di door a nangul di wate réew mi fi ne toll na jamono yoo xam ne da ngay dëkk Ndar mbaa Gore mbaa Tëngéej mbaa Bokkoo am déet mbaa Bokkoo ahlul xalli wal iqd moo tax bañ ko dindee nag ñépp war di bokk barki démb lañ wax ne ubbi nañ list yi ñi amul ñëpp war na dem jàng fal ak fal jàng folleeg fal waaye fi ne ñun mat nañu quinze millions ci réew mi sunu kagu gi ñaata la six millions anam ci des te nag sëñ kër si nee na foo fekk ku dul wate bu penc ma tasee mooma moo ko wax de nee na bu wootee jotee da ngay am carte ci gémmiñ gi carte bi ci poos bi wooteel bi ci poos bi te denc bi ci gémmiñ gi waaye kii wootewul la ci poos bi muy ëpp coow ca pénc ma ma gisuloo sunu sunu pétrole bi ñëw mu tam kurpañe fi lañ nekk di kurpañante ba pétrole xew yi del xaar rek waaw tubaab bi kat léegi ñu ngi defar oto yoo xam ne da ngay taxaw ñu defal la ci courant nga dem bu oto yu bëree fu fu fépp pétrole bi jëm yal yàlla dimbale te kat fi leen dëkk bi yëpp ay station la gars yi di xaar jaay pétrole ba ne baax ne fi leen tubaab bi jaar xamu leen ko waaw. gars yi dañoo toog di bëgg a naweti di waxtaan ci ñaata la ñuy ñu ne nag ku ne joxe cinquante mille cinq personnes lañ fu ñuy bayee ñu ne bulal. dëkku ñoom Oustaz Dame Ndiaye lu ñuy bay gerte waaw bu ñu bayee gerte bu ñu jëndee jiw euh, cent kilo ndax daañu am ton ñu ne ah, aw waaw waaw fu ñuy jaay gerte gi ñu ne buleel am na seko bu ñu ko jaay ba noppi nu ñu def xaaj bi ñu ne ah xanaa ñu ñëw Dakar jënd ci euh, ab këlandoo kenn ko génne permis ne ko am naa permis su ko defee man may dawal moom ko tàmm naa dawal kenn ku jëlee yet dóor ko xaañ ko ne bul jeexal gasoil bi nawetee guñu demaguñu fenn yàlla bu mu dal suñu pétrole bi tubaab bi daan ne article un ñi ngi may jigéen Moussa Diagne Seck mbokk yi nekkete ci 1938 la jigéen tàmbalee am ca France sañ-sañu Signe Seck ana boobu suñ daay Xadija ana boobu suñu yaay Xadija moom bi nga xam ne dafa woo yonent bi ne ko makka ku fi gën a bëri xaalis mun ne ko ca nga bokk ku fi gën a ñàkk xaalis mu ne ko ca laa bokk mu ne ko nañ weccoo bëggatuma moom ñu may moom ndax xam naa ni yow doo doo doo sénégalais lenn ci sénégalais yi waaw ndax góor ñu am na ko ñoo xam ne bu bool ak kon li nga moom lépp jox leen sukk ci seen kanam takk déeseem hmm? ñaareel ba ci ñu ne leen am ngeen sañ-sañu léegi ubbi compte 1938 léegi sañ ngeen ubbi compte ñetteel ba sañ ngeen siñeenteeg nit mu liggéeyal leen comme DG tey ñu ne sañ naa liggéeyal liggéeyloo euh, le caméraman la waaw booy Ablaye comme ça la ca jeeg la ca mujj mooy sañ nañoo donn waaw maa ngi coori yàlla fay la ndeysaan yàlla na nga déglu ba déwén waaw ñu ne ko sañ ngaa donn direct te alxaadi wala juge beeg procureur seen yoon du ci nekk loolu kat bu yàggul la ko am waaye mbokk yi yooyee tubaab bi di am bu ñu defee suñu jigéen leen koo xañ déedéet danoo bokkuti aada bokkunu nuy culture nu delloo siwaat kon ni ñu lislaam jàngale jigéen mooy ñooyam dañoo niroo wut ku ci nekk la la yàlla sas la nga ca man sa moroom mënu ko ku ci ne la yàlla def la nga ca man sa moroom ko kon suñu yóbbaalee loolu danañu xam ne jigéen ni góor di laxasi ndiggam pour samp dara noonu la sañal laxasin diggam pour samp dara su démocratie mayee góor gu ne am parti ci penc bi mu may jigéen ñoom tam ku bëgg am parti bu leen mayee ñu campagne mu may leen ñu campagne su boobaa waaye am jël su ko defee góor ñi nga xam ne nag ñoo doon noggatu xañ na ñu naan leen fii ñoo ko moom su boobaa loola xew yi fii maa ko moom daal di xew jigéen nag am ndajeem su melee nii kaar-kaar lalal naa leen su ndaje mi melee nii bu ndaje mi jeexee rek seytaane tàmbali liggéey moom bu ñu fiy jóge rek mu tàmbali liggéey ku ci nekk nag ak lam lay wax ci ndaje meeg mbooloo mi lànk leen ko waaw mbooloo mu mën a doon it dafay am koo xam ne kii mooy doon bopp mbooloo ma su nekkee bopp mbooloo mi te mbooloo mi ñoom ñépp bàyyee ko mu nekk bopp mbooloo mi mbooloo mi dox ni mu war a dox ñun ñii kat ñun ñii fekkee ñun ñëpp am nañ permis buñ duggoon ci oto ñun ñëpp permis dañuy denc rek kenn ay dawal lu permis yi bari bari ci oto bi nag kenn képpay dawal anañ ci de seeni permis ña nga ñu teg fa waaye bu ñëwee ci oto bi ñun ñëpp taw ku nekk naan yor naa permis maay dawal duñ fa jóge fa la ñuy mbooloo mi ne day am ñoo xam ne ñooy bët ñenn nekk nopp ñenn ña nekk làmmiñ ñee loxo ñee baat ñee gémmiñ ñu tànk nañu gis nga cër yi man sama loxo bii musta xëy na sama bët yi puusal ma sama loxo musal na sama bët yi puusal ma am déet mukk wala ma dank cee ba mu bët ne ma tegal ci man musul am damay dank ba noppi rek cër yépp d'accord ci naa ko jox gémmiñ ma joxal leen ko ko léegi bi bi ma ko ko joxee nag moom gémmiñ mu ne bëñ yi sàqamel leen ma ko moom mu jox leen digal bëñ yi naan ko nii ba mokk ñu ne làmmiñ bu ndaw ba ci biir xëccal ñu ko nga joxal ñu ko biir làmmiñ na ko xoo jox ko biir buñ ko ci joxee 34 dànk su fekkee ndaw ku ndaal 34 dank moom mu xaw a noddantiku waaw bu dee naw ko naa 34 lay def bu noddantikoo moom biir sëñ Bakke daal jox annoncé ne ne doy na mooy gi loolu mooy géex mooy mu ne dank yi doy na <laughs> nga daal toog ba ci kanam ba féex daal di naan ndox am na ngóor su ñuy wax ngóor su neex del soosu banaana nga xolli ko matt ci ñaari yoon ndax dina tax mbirum imur yi du la dal waaye biir moomu ñuy jox nag moom daf koy tiye di ko segg di ci liggéey di ko mooñ di ko tabax ba génn ci deret ne yi jël leen man soxlawuma deret ne yi jël jël calcium ne jël leen jële ci eh, ndeysaan eh, sucre ne jël leen lu la mu jox leen ko toog nag di xaar loolu la njiitul mbooloo nun lay mel njiitu mbooloo nun lay mel moom it mu mel ni njiit la ñu doon wax sallallahu alayhi wa mooy di dox ci transparence yàlla noonu yàlla boole dimbali yàlla ñu fekkee déwén bu déwénee bu ñëw yàlla bu kenn manqué su ma masaana wax nag ba agsi seize heures damay delloo kàddu gi ñu organisé bu ñu amee ngun-ngun yu mujj ñu ngun-ngun ko bu amee ay laaj ñu xaar ko laaj bu yomb ma tontu ko laaj bu jafe nag ma jox ko ñee ca taabal ja daanaa defi su ma tollee fii yëgle ne maa ngi fi indi ay clé yoo xam ne bu ñu ko génnee defe naa vingt la bu ngeen ko jëndee ba mu jeex su ngeen ma waatee ma ñëw bu ngeen ko jëndut ba mu jeex nag dangeen ma namm kale yaa ngi ne ca DG mii nga xam ne mooy directeur u Alimran TV ba noppi nekk suñu loxoom ndeyjoor assistante lañuy wax de mu ngoog moo nekk nii toog kii nekkoon fi yor micro bi na dem fii jël kasit di kale yi mu jaay ko ba mu jeex te taabal ji nag bul jaay ba par benn il faut par deux. <laughs> Euh, yaa ko wax de. jeex kon nag loolu moo doonoon suñu muhaadara bi ren yàlla nañ bokk fekkee déwén ñoo ngi jox cër ñëpp nag. lu jëm ci ji sunu borom la lu dul noonu du moom man mi la defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatulah innaka anta tawwaabu rahim rabbana ighfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana wal abrar allahumma iftah baynana bil haqq wa anta khayrul fatihin bi sirrina fatahna laka fathan mubina allahumma laka sumna بقولك آمنا وعلى رسلك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ذهب الذمم وابتلت القلوب وثبت الأجر إن شاء الله أكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان